lépp jafe-jafe la sax su ma ko mënee waxee noonu euh, comme ni ko proviseur waxee tout est priorité dans le lycée de Djibok lépp ay jafe-jafe la dalee ko ci yoon yi bi élèves yi di jaar pour dugg ci lycée bi yoon bi war a jógee côté Djibok euh, donc ci goudron bi pour ñëw ci lycée bi gis ngeen nu mel euh, jógee côté CMT pour ñëw ci lycée bi gis ngeen nu mel donc côté foo jaar rek pour dougu ci lycée Djibok ay jafé jafé kese la. inondation yi comme ni ko proviseur waxee parce que ñun gis nga bu ñuy wàcc dañuy obligé ñun ñëpp débrancher suñu machine yëpp aj fi li ci kaw parce que worul mën nga débrancher sa machine mais bo so bayé fil bi ci souf man man na indi benen problème. voilà salle de classe yi même chose salle de classe yi man su sañon sa sax ngeen def un peu tour salle de classe yi set parce que dafa am ay parties yo xamné sa plafond bi dafay. te capoté di daanu et cetera ngay gis fi euh, feer yi donc euh, ay problème yi bëri na daal ci lycée bi waaw ay lépp ay la lépp urgence la